mbokk yeeg euh, xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg euh, seen site bi di Sunugal 24 di am mbégte lool ak bànneex ci dellu siwaat di àndaat ak yéen ci biir seen émission Kër mbay ak ni ñu koy defee saa su ne xam naa gars yi namoon nañ ñu waaye mayit maa leen raw ndax su ma sañoon su ne damay jàkkaarloo ak yéen waaye nag comme mbir mi dafa laaj segg ak segg seggaat dafay jaadu rek eh, ñi nga xamante ni dama leen di indi fii ma gësu leen ba naw seen xam-xam lool li ki des nag ñu jël ko teg ko ci loxo suñu borom mi nga xamante ni moom mooy mottali ñu delloosiwaat koo xamante ni mën naa ne du gan ci kër Mbayang euh, sëriñ Cheikh Mbacke lañ koy wax gaynde Fatma tabarkàlla macha allah déggoon ngeen li waral ñu koy wax gaynde Fatma waaye itam xam-xam ba ak yitte ji ci wàllu jaam yi euh, nekkatul lu ñuy nattable li may def rek mooy dama koy bàyyi mu nuyoog mbokki internet yi su ko defee rek ñu daal di xuus ci waxtaan bi seex bi maa ngi lay ziar bu baax di la nuyu di la bàyyi nga nuyoog mbokk yi. auzu billahi mina wa inni onsa bika wa suriyataha min asaytaani rajim rabbi ons bika min hamasati sayati ons bika bi an yaqduruni maa ngi lay delloo fay ñu lay fay cheikh bi euh, yaakaar naa ni yaa ngi bëgg géej euh, kër Mbaye hmm. euh, ci lan ak lan nga nekkoon gëstu la wutum garab la wala ndax aajoy jaam yi ci boppam moo moo diisoon ci sa kaw waaw xam nga lépp loo xamante ni dañ koy indil askan wi rek hmm. day nekk loo xamante ni ci fépp fuñ ko dégg it dañuy dem wuti ji ko mhm. ba tax na ñun garab yi ñun ñoo koy wutal suñu bopp mhm. man maa koy wutal sama bopp mhm. ba tax na Dakar sax li ma fi toog bëriwul chaque jour maa ngi ci àll bi maa ngi Mali maa ngi Guinée ngir ñi nga ni dañoo ñëw ngir faj seen i aajo ngir yàlla ma ma faj seen aajo euh, te ñu fekk fi li nga xamante Mhm. moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy sàkku si. Mhm. incha allahu rabbi loolu loolu lañ ci jublu. waaw loolu tamit lañ ci jublu ci. suñu Cheikh ñaan ñaan lan la ci moom fan fan la jëlee ñaan. waaw xam nga ñaan nag. Mhm. man dama ko dodd. man moo tax ñaan dëgër ci man. ndax ci sama maam la bi nga xamante ni ñu tax ñu tuddee ma suñu Cheikh Gaynde Fatma. ndax seen sama maam suñ morsee la di séeréer nag. ndax bi may ñëw ci suñu Cheikh Gaynde Fatma indi woon na cosaanu séeréer. yor bagage ci séeréer. waaye si Cheikh Gaynde Fatma. Mhm. moo ko jël tërbiyee ko def ci moom li ngeen def ci moom. d'accord waaw ba tax nag fi mu toll nii ñun ñaan rek lañ mën a def. Mhm. ñaan rek def waaw mënu ñu lu ñaan. di séeréer. waaw loolu lañ naan tey ay séeréer la. macha allah mhm. ndax xam-xam séeréer bi léeg-léeg koy jëfandikoo ci yenn mbir yi nga xamante ni day dëgër wala ndax ci alxuraan ji rek ngay yem. déedéet ndax am na ci yoo xam ne nag foo ma jëfandikoo li ma dond. waaw. am na ci yoo xamante ni li ma dond ma jëfandikoo ko. daanaka moom lay gën a jege sax. moo lay gën a jege daanaka du ma fi son du ma ci son bu ma koy def. xanaa loolu la waral gars yi tuddee nag. Mm-hmm. man ma wax ne xam-xam bi alxuraan mooy doon bi nga xamante ni mooy gën a dëgër. jooni mm-hmm. jooni mën nga ko am léegi mais na rëccaat sa loxo ndax xam nga bu dee jooni jooni moom. Mm. mbiru fitis la. wala mbiru xam-xam bu ñuul. Mm. te it jooni jooni moom duñ ko wax kenn moom. Mm. waaw ndax loolu ñun dañuy ñaan ci suñu borom. Mhm. te kuy ñaan ci doone léegi léegi laa ko bëgg. Mhm. da ngay ñaan bàyyi ak suñu borom. d' accord yaa ngi dégg. d' accord waaye man moom li may ñaan. Mhm. dama koy teg ci xam-xam. te damay xam ne lii fii moo ko jaar nii da ngay da ngay am li bëgg. d' accord waaw kay. gaa weranteetuñ ko ndax ñu lay topp ci réseaux sociaux yi macha allah fa tabarakallah mu nekk koo xamante ni itam résultat yaa ngi war waaye mbirum seet itam nekk loo xamante ni sa la euh, ci ah. alxuraan ji la ci xam-xam bi la tomb la wala lan ngay seete waaw man nag seet nag moom hmm. dama ne fii kenn daquma ko hmm. seet bi mu seet hmm. ndax man ñaari seet laay def benn bi lu ma jàng la benn bi lu ma dond la benn bi ma jàng mooy ramli ramli ramli bii ñuy def ku ma ko dàqul fii dàquma ko waaw te dama koo jàng te Mali laa ko jàngee jàngee ma ko Sénégal ah, Mali nga jàngee façon yi ñu koy jàngee ñi bu dee Sénégal Euh, seize seize lañ seize bi lañ yem man quinze euh, ñii quinze lañ yem man seize. d'accord maa leen raw ci seet yi fuuf. ci ramli bi ci ramli bi fuuf. li nga xam te ni lu ma doon la ci sama maam. Mm-hmm. sama maam bu lay seetal sa rawaan lay jàpp di wax ak moom. Mm-hmm. nit ki day toog mu wax ak rawaan ko wax. rawaan bi di ko dee mu lay wax. mu lay wax te man loolu dama koy def. d'accord waaw. ndax seetu kii nga xamante ni mooy Serigne Cheikh ndax metti na. déedéet seet moom man du metti ci moom. du métti ci yow. parce que des fois gars yu bari dañ koy ragal parce que dañ naan ceeb bi day métti. déedéet man ceeb du métti ci man ndax mën naa ko. man loo man ci ragal. d' accord dafa laaj mu fanaanoo wala dafa laaj ku ku ku bëgg itam nekk bitim réew woote ci numéro yi ci whatsapp wala dara nga seetal ko ceeb bu leer sans pour autant muy laaj fanaanoo. déedéet xam nga fanaanoo listixaar la. waaw man seeti jooni jooni laay def. jooni jooni ma seetal la léegi. ceeb bi lu tax sax yëpp nekk jooni jooni. waaw déet ko laaj. léegi amatul nit ñi amuñu temps bu ñuy taxaw di xaar. léegi ñëw rek defal la ñu d' <laughs> accord muy am sabab. yaakaar naa ni ci wàllu ceet gi. Hmm. Euh, ci kaw joni joni boobu itam gis nañu loo xamante ne parce que wax naa la ne jaar nga fii ci émission bi. Hmm. donc lu ci bari synthèse lay doon laaj ci li fi jot a xew. Hmm. gis nañu ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu ubbeeku ak wàllu kaaraange loolu itam cheikh bi def ci am joni joni bu doy waar moom la nag lan lay defaral nit ki. ba tey ci sunguf ak ren bi la wala xam-xam bu ñuul bi la wala loo jëlee Mali la. waaw man nag. Hmm. bu dee ci wàll ubbeeku. waaw mën naa la defal loo xamante ni. Hmm. dama koy booleeg sunguf. Hmm. te day gaaw lool. maanaam ubbeeku la goo xamante ni moom. sax waru koo laal. gone war war koo laal ndax ubbeeku la goo xamante ni moom dafa dafa day waat lool. waaw ñu koy liggéeyee ci sunguf. ak alxuraan. boole ko dañ koy boole comparaison dañ koy dañ koy boole mm-hmm. waaw moom mooy ubbeeku bu gaaw a gaaw la nag moom mm-hmm. gaaw bu yàgg ku ko laal ñu dégg la moom moom fépp lañ koy def am na solo 78 euh, le 153 23 30 78 153 23 30 numéro yooyu am ngi noonu ci suuf euh, écran bi dinaa ci ñëwaat ci beneen deuxième numéro bi euh, su ko defee rek ngeen mën ko jël jokkoo ak moom ci whatsapp ak fu mu foo mën ci nekk incha allahu taala dina jëflanteeg yow ci loolu waaye tam gis naa ni am na loo xamante ni itam Serigne Cheikh mii toog hmm. nga xam ne moom lañ duppee ngay defar ni jëlee na ay maamam loo xamante ni léegi yàq doomu aadama dafa xewee comme lii di xew léegi dem ci armée li su suul nit def nit lu bon yàq addinaam ki nga xamante ni dafa jeexal takk kii nga xamante ni mooy Serigne Cheikh mën na koo defal loo xamante ni ci kàttanu borom bi dina dellu si waat la ca yaramam set waaye dina ko defal loo xamante ni retour à l'envoyeur lay doon maanaam kaaraange gu wér ceeñ mm-hmm. loolu secret bi lan la loolu nag dama koy ñaawlu ba pare mm-hmm. lii ñuy def ci armée bi mm-hmm. dama koy ñaawlu dem ci bàmmeel suñu ba daj bopp néew màbbal ay bëñam dugal fa téere ngir lan fay wax ñu ci bari fay wax la tëdd ci alalu jàmbur bañ mu wax d'accord benn yaw di nga am bàkkaar la ko defal am bàkkaar néew bi nga xamante ni moom ngeen def ci bàmmeelam noonu ba léegi yow moom xeet ak war di ngeen ko da mhm. ngeen koy layoo. est yow xam-xam boobu xam nga ban xam-xam la xam nga ko. xam-xam boobu moom zulmaanir parce que wax la. zulmaanir man xam naa yu yëpp. Mhm. parce que fay wax la rek. Mhm. nit ñi da ngay gis koo xam day tëdd ci alalu jàmm. wala mu yoral nit ki ay bor. man nii dama koy def mais man samay affaire du dem ci armée waaw mën nga koo defal nit te mu a dem ci armée fay wax léegi laa koy def fay wax moom jërul dem ci armée di ami bàkkat say wax fii ma taxaw nii laay def ci ay këriñ rek laay wut saafara si bu ma ko sottee ci këriñ gi ni këriñ gi fayee noonu la wax ji faye ak lu man a doon. bu boo réyoon nit laa wax ni ngi koy euh, wax yees bi la. Hmm. kenn du la ci def dara. bu wax ji jógee. maanaam wax ju jug. léegi bu wax bu jógee na mu dellu siwaat ci yow. wax moom bu jógee moom. waaw moom rep lay def dafa rep. waaye dugg ci armeel di def ngir lan ñu mhm. ci bari nguur adduna jëru ko da ko jëru accord ndax doo ko fekke d' accord waaw mais ki ñu yàq addinaam ba mu yàq yaxeet jaarale ko ci ay almeer ak moo xam foo mënti doon ndax am na ci pexe kii di sëñ bu baax maanaam bu buñ la liggéeyee def ko ci armeel wala ñu sànni ko géej sax boo mhm. ñëwee bu ma la defaralee sanget ñetti fan laa la may nga tàqoog moom sanget gu kenn ko sangoo sax ci kër kenn du ko sangoo ci kër. parce que boo ko sangoo ci kër liggéey ba day des ca kër ga te mën naa dalaat ci kanam moo tax boo koy sangoo da génn kër gi àll wala feneen lañ koy sangoo. loolu dina yéeme de. waaw àll lañ koy sangoo ak dëkkuwaay yu xat yi. waaw kay kenn seen ngay sangoo ñu yaakaar ne dara la. kenn ko sangoo ci kër maanaam ci àll nga koy sangoo wala nga dem feneen sangoo ko fa fu dul sa kër parce que boo ko sangoo ci sa kër mën naa des ci sa kër toppat wala mu topp ci ñi nga xam xamante ni ñoo nekk ci kër gi moo tax loo xam day dindi ci yow mm-hmm. kenn du sangoo fi nga nekk loolu nit ñi bàyyiwuñ ci xel xam-xamu cosaan la loolu xam la loolu nit ñi bàyyiwuñ ci xel daan nañ daan nañ dégg ñu ne dafa dem ba ci àll ba defa sangoo sangu wala mu dem ba géej dafa sangoo garab waaw kay loolu li dam mu am lu muy dindi ci boppam loolu lu bëggul mu mu demaat ci moom bëggul mu dem ci kanam d'accord waaw kay d'accord donc loolu tabarkàlla macha allah ñetti fan boo ko sangoo trois jours trois jours dindi liggéey moom ñetti fan rek. ñetti fan ñetti fan ak liggéey bi nu mu mën ci doon ak nu ñu la ak nu ñu la yàqee ndax kaaraange gaa nga fa loo xamante ni retour à l'envoyeur lay doon parce que léegi boo sangoo dindi li sa yaram gars yi duñu nappal ko mm. ba mu mm. dañ fexe nag ut loo xamante ni lépp lu la waay defaat mm-hmm. maanaam waxuma laa mu dem ci moom waaye day faatu day faatu xam na loo xam maa ngi koy liggéeyee ci mbott mbott mbott mu dee mm-hmm. ci sanget bi bu ma ko liggéey su ma la ko joxee nga sangoo mhm. ku la liggéey day faatu hmm? ku la liggéey yàlla xam na day faatu te mbaa loolu dina doy ci dëkk bi di waaw loolu moom xam naa ne moom ku ko def say mbokk yi njëkk dee rek ndax léegi li la naqari say mbokk la koy teg ñoo la koy loolu leer na nañ li la naqari moom kon gars yi ñoom ci seen wàllu bopp nañu jógal seen bopp jéem a dem gëstu ci loolu wut cangat goo xamante ni dangay aar sa bopp Euh, ma nga fa mbott la koy defee ku ko ku la laal ku ne ci biir suuf lay daal di dem ni mbott di dëkkee ci biir suuf non yow nag mbott lay tane ndax mbott dina génn te yow doo génn donc euh, mi ngi noonu numéro yaa ngi noonu euh, su ko defee rek ngeen mën ci woote daal di jokkoo ak ki nga xamante ni mooy sëñ Cheikh sëñ Cheikh wallu kayit gis naa ne waa bitim réew yi ñu ngi ciy jëflante ak yow yow looy wax ñi nga xamante ne am nañ jafe-jafe ci wàllu këyit waaw ñu dalal seen xel xam ne bu dee ay Mm-hmm. wala ñi nga xamante ni ndax sànq rek am na ñu ma jéego di ma ci wax lu mel noonu. Mm-hmm. nga xamante ni ay problème bu këyit lañ am. waaw waaw bu dee koo xamante ni yàgg nga ak loo ko mën a def ak temps boobu mën a toll. Mm-hmm. buñ déggantee buñ ci juboo di nga am këyit te du yàgg. bu dee liggéey di nga am liggéey. bu dee déggoo nasaraan yi wala du ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñoo ñoo la jiite foofu. lépp lu mu ci mën di doon. moom du yàgg. ku bëgg sa bitim réew neex daal. waaw en tout cas daal parce que man moom waa Allemagne ba tey man Allemagne laay wax. Mhm. Allemagne Italie. ña mhm. fa nekk xam nañ moom. say waay lañ. samay waay lañ xam nañ loolu lu wér la bañ cee tudd ay tur tabaarkàlla macha allah euh, loolu moo tax euh, waaye nag euh, waa bitim réew yooyu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. di kontaan ci ni ñuy àndee ak euh, sunu cheikh bi di Serigne Cheikh euh, Mbacke Gaynde Fatma 78 104 05 34 78 104 05 34 ba tey itam numéro am la mën ngeen ci jokkoo ak moom wala ngeen def 78 153 23 30 ngeen jokkoo ak moom su ko defee rek euh, mu jëflante ak yéen wàllu kayit ak yooyu yëpp waaye am na ci loo xamante ni itam moom da ngay daal di dugg ca séeréer ga rek muy wàllu rab. Hmm. tàqale ko gaa yi. ñi nga xamante ni rab téye na leen ñu bañ am borom kër wala bañ am doom wala di leen yàqal ci wàllu àdduna ñoom ndax dafay jaadu ñu ñëw ba fi nga xamante ni mooy euh, ca Thiès hmm. sangu si fa wala ndax dañuy yem almadi ñoo sangu si fa wala naka la ñuy def pour tàqalikoog seen rab waaw bu ñëwee ñi nga xam ne dañoo amee rab nag hmm. ba tax mënuñoo sëy hmm. ñu ni moom buñ ci déggantee almadi moom euh, day sori waaye nañ déggante rek. 26 unité 26. parcelle unité 26 parcelle unité d' accord bu mu fa ñëwee. ñaa mhm. leen fexe ba ñu sangu. Mhm. wala kum ci neex it nga yóbbu. Mhm. sa kër ndax saafara si man naa dem. waaw boo demee nga sangu si bu dee rab la téye ba amoo jëkkër. rab bi dina la bàyyi te it di nga am borom kër. boobu xam-xamu séeréer bi la xam-xamu séeréer la waaw. waaye léegi kan moo la kër xuban. nga dëkk ci almari. waaw heure de crime nga fay recevoir wala kilifa yu mag nga fay recevoir. waaw almadi nag ku nekk sa ginnaaw ki ma fa nekkal moom wax dëgg yàlla bëggul sax ma koy tudd nag moom. Mhm, jarul tudd waaw bëggul ma koy tudd waaye nag. wax dëgg yàlla kilifa la ci kilifa yi nga xamante ni ñoo ñaanee ci état bi. Mhm. waaw ndax daanaka booy xool. Mhm. kóllëre goo xamante ni sama maam la woon ba tey. ndax ñoom sama maam moo leen yoroon. d'accord ñëpp ñi ci bëgg a falu ñii. sama maam moo lay falu. ci kanam am na ci ñoo xamante ni. maanaam bi ñuy xëccoo wàllum àdduna yii. Mm-hmm. bi ñu ñëwee ci moom. Mm-hmm. yére bii ma teg nii. Mm-hmm. yére bii. juróom-ñaari yére la bii. bii nii. bii xëccoo juróom-ñaari yére la. bi juróom-ñaari yére la nii. nii benn bi rek laa indi nii. d'accord waaw juróom-ñaari yére la juróom-ñaari sangat lay àndal. boo koy sangoo ci kaw fu sori ngay taxaw. maanaam doo taxaw ci suuf. fu kawe ngay taxaw kawe ngay taxaw. waaw sangoo. ndax la xëccoo moom donte téeméeri nit la. yow yaa koy jël. yére bi. yére bi. te waaw lii nag moom ci sama maam la woon ba tey bii maa koy maa koy defal sama bopp ak ñi nga xam dañoo ñëw mat solal leen ko sang leen ci pare ci. am na ci wax ne leen ko wàccaat ko fa. waaw buñ paree lañ lu ma doon loolu ci sama maam la jógee. waaye nag dama ci liggéey yoo xam dama koy joxe. bu ñu dem ba bitim réew. Hmm. am ñoo dañ koy soxla am na ci ñoo xamante ni nag moom. dama leen koy jox ñu nekk ko seen kër bu dee ci almadi gii. Mhm. am na ci ñoo xamante ni am nañ ko ci la ñuy sangu. te ñu ngi lay seeraan ñu ngi lay seeraan baax baax xam nañ. d' accord muy lu doy waar kon xëccoo moo ko tax a jóg. kon daal rek xëccoo. Euh, euh, ba tey xale yi nga xamante ni ñoo nekk en classe d' examen gis naa ni itam bàyyiwoo leen. doo leen jox mbub mi mais am na yoo leen di defal yoo xamante ni bu ñu demee. Euh, jàng ba yàlla may leen benn xam-xam bi bu ñu demee xëccoo jëg seen morom yàlla mën na ci def sutura waaw waaw bu baax sax mm-hmm. moom man mbub bi mbub mi day day day kii ci yow day for day for ci yow day for ci yow mbub bi ko tax a jot waaw kilifa daal kon wàcc yu mel ne man bokkum ci mbub mi ah déet kilifa yi daal kilifa yi nga xam daal ñoom nit ak man sama classe bi dooru ñu fayow ñaatawuñu xeex mbiru adduna ah, ñi nga xam ne mbiru adduna leen ñor rek d' accord waaw ñu ne ñoo ko tax a jóg d' accord waaw waaye ñi nga xam ne nag ñooy jàng ba mhm. toll fi wala ñu def benn concours moom d' am nañ ci loo xam moom bu ma leen ko joxee incha allahu rabbi mhm. lépp lu ñuy xëccoo dinañ ko am mhm. ak seen i morom dinañ ko am ci kàttanu yàlla ci kàttanu yàlla waaw bayra bukki la wala bayra lan la. waaw wala bayra tubaab bayra bukki am na bayra Souleymane bi am na. Mhm. waaw am na ci bayra boo xam maa koy liggéey ci faramaara ay noonu ak barnaxu ndax yonentu yàlla Yuusufa mhm. bi ko jigéen ñi gisee. Mhm. muy dugg si. dañoo tiit. ba dagg ndax maanaam seen i eh, taaram. ba di dagg seeni i loxo moo tax aay bu wàcc. muy faramaara ay noonu boobu waaw. moom dama am na ci bayra boo xam ne du ma ko defal sax ko am ku amul fanweeri at ak ndax for gi muy for. riir ma day bari riir ma day bari maanaam doy na war yéeme na yéeme goo xam daal kenn mënu ko wax. d'accord waaw. Euh, ñu ñëw ci li nga xamante ni moom laay mujjee parce que nag euh, gis nañ ne dafa nekk sa fort ñu leen suivre ci réseaux sociaux yi xam nañ loolu. Hmm. ñi nga xamante ni ñoom ngay jëflanteel itam surtout suñu mbokk jigéen ñi xam nañ loolu muy wàllum nopp. waaw parce que jàpp nga ni daal sëy yi moom war a kenn waratu ko seetaan. Hmm. lu tax nga def slogan boobu. waaw xam nga nopp nag. Hmm. dama ko teel a man mm. nopp dama ko teel a man ba nga xamante ni mm-hmm. ñi nga xam damaa nekkoon na ci daara ji sax mm. dañ daan ñëw ma leen koy defal mm-hmm. te booba gone laa gën naa nekk gone sax mm-hmm. waaw ndax koo teel a gëstu ba man ko mais lu tax des doo ko defal koo xamante ni caaxaan ko caaxaan déedéet dama ko defal ab caaxaan kat d'accord parce que sa yos du ay caaxaan déedéet ndax boo ma ko xasee def jeex na moo tax boo ma ko xasee def jeex na caaxaan du ko dindi sama nopp caaxaan du ko dindi waaw ndax dafa nekk xam-xam boo xamante ni xam-xamu cosaan la. Mm-hmm. waaw xam-xam bu doy waar la boo xamante ni bu ma la noobalee moom. Mm-hmm. noo nopp du taxaw tey dina la bëgg amul sama nopp nopp boo xamante ni. Mm-hmm. da koy def ñu naan la kii bu yàggee nii wala bu defee nii day toj déedéet nopp boobu du toj. te nekk lu la nga ciy commencé semaine une semaine une semaine. nga commencé gis changement. moom une semaine la parce que. fas boo xam ne nag moom. Hmm. maa jëlee ci sama maam. Hmm. ko xasee fas ba pare. Hmm. ba dugal li koy dugal nag du ma ko wax ko ci dugalee. vingt quatre ko ciy dugal bàyyi. nga foog a ci sa ndigg trois jours laa may foo nekk mu wëri foo nekk mu wëri la moom boobu. la ca maam sët a koy jël. numéro yaa ngi noonu. 78 153 23 30 wala nga woo ko ci 78 104 05 34 moom mooy numéro am numéro yi lu ñu miin la waaye góor ñi nee nañ ma ndax nopp léegi dafa doon loo xamante ni jigéen ñi rek lañ ko war a defal parce que jigéen ñi ñu ci bari ñu ngi dem di wan ginnaaw seen borom kër te seen borom kër yi duñ doyal ci ñoom boobu même pexe bi la wala. waaw waaw noobu góor am na noobu jigéen am na. am na ci nopp yoo xamante mhm. jigéen ñi ñoo ñoo ma leen koy defal. Mhm. waaw jigéen ñi ñu ci bari sax jigéen ñi laa koy defal. moom jigéen ñi moom yow lañ féetee. rawatina noobu tubaab parce que noob gi jàpp ku ñuul bokkut ak gi jàpp. d' accord ku xees. ndax man noob gi may noobee tubaab. Mhm. ci ngi gis laa koy wutee. ngi gis ngi gis bu sax ci biir armel. yëfu mag waaw bu sax ci biir armel. <laughs> moom laa koy defee noob goo xamante moom du yàgg tubaab boo mën a doon ak koo mën a doon suñu la ci noobee nga jàpp la nga nangu waaw solo mu ngi noonu tabarkàlla macha allah yu baree baree bari mi ngi fii wàllu nopp wàllu am borom kër euh, moom am borom kër moom loo koy appelé xale yi à part nga xamante ne rab da koo jàpp léeg-léeg dott lay doon wala dëcc wala yàq yi nga ndox sànq loolu ci ñaata temps ngay sangat nit kii wala nga jox ko ay yëf pour mu am borom kër waaw bu dee ki nga xamante ni nag moom hmm. rab moo tax mënul am borom kër. Mm. ndax dafa am ñoo xamante ni. Mm. mën nga leen a defal saafara soo xamante ni. Mm. mooy tax ñu am boroom kër. mën nañ ko jëfandikoo te te ko am. ndax dafa am lu jiitu. loo war a dindi muy rab bi. ndax saafara si boo ko defalee boo ko joxee rab bi mën na koo yàq. moo tax rab bi ngay dindi ba pare. bu ma ko dindee rab bi moom semaine dinaa ko dindi. Mm-hmm. jox la lu ma la jox. bu ma la ko joxee quatre jours cinq jours. nga koy def mm-hmm. mu jeex te it booy am borom kër doo am borom kër bu waye waye mu doo am como déedéet mbër nga yam ku baax ku baax nga am tàkkal la waaw kon jigéen ñi nañ ko seeti numéro yaa ngi ci suuf écran bi euh, ñu jeexale rek euh, ci yenn ci xeetu jàngoro yi nga xamante ni gis nañ ne Serigne Cheikh Mbacke da koy faj te it nag euh, mu doon loo xamante ni xam-xam la bu wér ci moom ñu ñëw ci diggante hémorroïde ak ndoxum siti fa la ñuy jëkkee balaa ñëw ñëw ci daj dëpp gi hémorroïde ak ndoxum siti waaw ndoxum siti moom mm. baaxul mm. ci góor rawatina ci ñëpp baaxul ci mm. kenn sax mm. bu dee ko góor mën naa def ba dem ba wàllu kàttanam da koy wàññi waaw moo tax baaxul te day yàq say tànk ak say lox mais képp koo xam daal jox nañ la suñu traitement boo ko jëfandikoo dina taxaw moom ndaxum sit nag lu taxaw nit carrément moom day calme day calme mais biñ la ci jox boo ko defee tey garab bu olof lay doon du sunguf lay mokk bu lay jàpp ki man noonu mhm. sunguf mën naa bañ a rees waaw garab lay doon bu ànd ak alxuraan mhm. boo ko tàmbalee naan mhm. mu boo boo quatre jours rek wala cinq jours nga gis ne mu set ci yow d'accord waaw donc traitement bi quatre jours la cinq jours quatre jours nga gis lépp da nga koy tuur ndox waaw boobu moom boobu moom tubaarkàlla parce que ndoxum siti sonoon na nit ndoxum siti moom dafa wàllu hémorroïde nag bi dugg ak bi génn ak bi nekk ci biir waaw moom it am na ci ay pommades yi joxe mm-hmm. yoo xam ne bu génn la moom mm-hmm. mm-hmm. moom looy naan lay doon rek d'accord waaw soo ko noonee du yàgg mu denc ci yow d'accord moom du deñ hémorroïde waaw moom incha allah baaxul daal ñaari yi yëpp feebar la yoo xam baaxul ci ko mm-hmm, mm-hmm. jëmmi émori. baaxul mm-hmm. mais léegi dafay dal jigéen ñi. waaw ah, dafay dal jigéen ñi baax dafay dal jigéen ñi lu bari sax. baax sax. muy lu solo ba tey euh, ñu jeexalee ci wàllu euh, kattan. kattan googu la euh, li tax ma mujjee ko man toujours wàllu noob ak kattan man dama koy bëgg mujjee di ci yow ndax dafa doon sa fort. wàllu kattan gi moom traitement bi ñaata temps la. bu dee kattan nag moom. Mm. man waxuma laa sax nga ma yokk sa kàttan waaye sa awra boo bëggee ma yokk. awra bi da nga ko yokk. waaw. gars yi loolu dee ñaam bi am kay ñaam la nga bëgg sa awra tolloog nga jox ma ko. nga natt ko ci ñaam bi. wutal ñaam bi rek yow nga dem marché nga jënd ñaam bi lu tolloog li nga bëgg sa awra tolloog nga jox ma ko ma defal la ko nga am ko léegi. ci saa si bal ñaam bi ci ñaam bi ci kay la bu ma ci defee ni ma la jox dama la koy jox nga yóbbu. pour loo nga yóbbu yóbbu yóbbu def li ngay def. nga jëfandikoo nga xool ci ñaata temps nga gis sa résultat. yow koy jëfandikoo ko rek ci guddi gi laa wax jëfandikoo ko ci guddi gi nga xool. mbaa du doon lay jëfandikoo gis ko léegi après dem la nga amoon solo toog am que gars yi ne nañ tamit loolu day am. loolu gàncax njàmbi lañ koy defaree ak alxuraan loolu amul loo xamante ni muy ëmb nit ñi maanaam ñàmbi ji dañ koy lekk sa jur ci añ ci alxuraan day faj. Mhm. kon amul luy lore. waaw donc mu toll nu la neex te dootul dellu. te dootul dellu. waaw am na ci beneen boo xam nag moom liquide la dama ko man maa koy defar waaw li ma koy defaree léegi jën bi ci géej lay jógee mm-hmm. waaw maa koy defar bu ma ko defaree ci ay pommades yu ndaw laa koy def liquide lay doon rek. boobu mm-hmm. laa lay day nii moom it boobu ciy diw noonu la koy def yaay xool nam bëgg mu doon nga arrêté nga bàyyi. te benn pommade bi doy na. benn bi rek doy na sëkk benn bi doy na sëkk bu dee ci kàttan nag moom. ñu ngi ciy defar yoo xamante ni ñu koy defar ci ay reen yu ànd ak alxuraan. ay reen yu ànd ak tax ndax man du ma faral di joxe ay sunguf lu bari. Mhm. donte sunguf sax am na ci ñu ciy defar lu baax. ñoo mhm. xamante ni am na ñu defaree tuuti koolaa waaye man yu ci bari reen laay def ndax cosaan lii man cosaan yi laay def. Mhm. loolu da lay faj jox la li nga bëgg te doo am jàngoro te doo am feebar. dëgg la dara du la dal. dëgg la moo tax man moom wàllu yëpp man. Euh, cosaan la donc ci néew kattan. ci néew kattan ci man euh, baaxul. ki gaaw a egg. wala ki nga xamante ni sax du jóg bay egg. ok ñoom ñëpp. Euh, incha allahu taala bu ñu la contacté ci numéro yooyu. waaw di nga leen dimbali ku ci nekk moom. moom bu ma contacté incha allahu rabbi bu dee néew kattan. Mhm. bu dee da ngay gaaw a yegg bu dee sa man yu sax dafa baaxul. Mhm. wala mu néew. bu mhm. ci nekk dinaa mën naa la koo fajal. incha allah te man samay mbir moom. semaine rek lay yem. semaine waaw semaine samay mbir yëpp semaine. macha allah jaar na fii te nag kenn musuñu koo kalaame kon donc mu war nañu mën a am yaakaar ci li nga xamante ni moom lay yëngu euh, ñu ñaanal ko ci yàlla dëgëral ko yoon wi mu tegu itam yàlla euh, bàyyi ko ci te gën koo may ay ndam euh, Cheikh bi lan lay tàggoog mbokki internet yi. waaw li may tàggoo nag. mooy di sant ñëpp di leen gërëm. di la sant di la gërëm. di sant sa waa ji. Mm-hmm. waaw tamit nag di la di wax sénégalais yi nañ bàyyi xel Pape Djibril Fall. ñu bàyyi xel Pape Djibril ndax sànq rek am naa ko ma ciy waxtaanal. sama collègue. waaw kay nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax xam naa ne. Mm-hmm. maanaam jëm feeg ci kanam tuuti. Mm-hmm. amul lenn lu ñuy def ci Sénégal luñ ko wóorul waxtaan ceeg moom. dëgg la moom Pape Djibril Fall nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. nañ ko bàyyi xel nag. waaw man moom lu ma la wax na ko na ko na ko bàyyi xel. dama la ragal kay. nañ ko bàyyi xel ko bàyyi xel bu baax. mais coowal politique bi ci àdduna bi assemblée yooyu ñoom noo gisee tolluwaay politique ci réew mi. waaw ci say seet say li saxaar wala Pape Djibril rek nga teg choc. waaw Pape moom nañ ko nañ ko nañ ko bàyyi xel. macha allah nañ ko nañ ko bàyyi xel bu baax. ak am jom waaw ak am jom. am yar ami teggi naa ku ma ci waxtaanal wax ko ci lu mel noonu. ndeysaan waaw du lépp lañu mën a wax ci kii daal. am na solo waaw am na solo. Hmm. ñu ngi lay jaajëfal. Hmm. yaakaar naa ni loolu mooy sa kàddu bu mujj na. sa. bi nga xamante ni ñëpp nu ma mel rek moom la. ndeysaan di sant njabootam yëpp. Mhm. waaw jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom lañ ko tuddee eh, te it nag xam-xam bu wér la yor ndax la ca maam sëta koy jël jël na ko ci maamam ba mu doy sëkk la macha allah mu dem itam dem gëstu ji ko euh, mu doon loo xamante ni daal kenn dootu ko nattable comme damay wax rek ne woo leen ko ci 78 153 euh, 23 30 78 153 23 30 wala ngeen woo ko ci 78 104 05 34 soit day nekk Almadi day nekk Parcelles Assainies léeg-léeg itam gars yi mën nañu suru fekk ko diwaanu Thiès fu ko ci waaye woo rek incha allahu taala dana dajeeg yow jëflante ka ak yow euh, ca mën gën a jàppandale ci kàttanu yàlla bu leen tiit bu leen ragal nag ndax dafay liggéeyal yàlla te yàlla tax euh, looloo tax rek daf koy oyofal jëm ci jaamu yàlla yi nga xamante ni ñoo nekk ci ay jafe-jafe ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm ki nga xamante ni moom la àndal ak rawatina chauffeuram bu baax bi tabarkàlla macha allah ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp gërëm sama technicien du jour libaas lañ koy wax Laye Makhtar Alassane ak Seyni rendez-vous incha allahu taala très prochainement lay doon ak beneen gan ci biir Kër Mbaye asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu fi amoon ni la jàngeen